moo fóoréeroon c'est la question qui se pose exactement le pourquoi mo euh, euh, défendra dal ñi nan mo dafa daw ñi nan mo ba du menace yaa ko exactement euh, fa nga nekkoon mo maa ngi village maa ngi woon Medina Yoro Fula hmm. ci soxna si hmm. ci sama yaay aussi hmm. wa fa la nekkoon <laughs> alors bon taal ce micro <laughs> <laughs> fala falaa nekkoon maa ngi won ci ci Medina Yoro Fula euh suma village xam nga wax yi bari na ci euh mais c'est normal parce que jamono ji mu dajel la. Mm, mm. am yu ci bari wax yu ci bari yu nga xamanteni toftal na ci euh, euh, man déjà comme mm, comme j'ai l'habitude de le dire euh, man limay dem sama village bari na. chaque fin du mois fa laay dem. parce que sama njaboot ñepp a ngi fa sama soxna ngi fa sama doom a ngi fa sama yaay a ngi fa sama rak. ñepp ñu ngi fa. donc fofu chaque fin du mois mënumaa tok weer yu nga xamanteni ni dew ma fa. mais dem bi dafa dajale ak mm. dafa dajale ak lu bare bare bare mm. mu mm. dajale fekk ma def benn émission da joxe benn information menaces yi takar naa si am ñu ma koj menace boobu dëgg la am ñu nga xamante ni koj nañ ma sama bopp koñ à Pikine euh, mais après loolu euh, police def na ci liggéey bu am solo parce que taxaw nañ ci euh, taxaw bi ci war aussi mais ci jamono jooju fekk ma def faux pas sama cheville bi xaw a am jafe-jafe voilà ma demoon nag village donc xaw fa yag def fa un mois danaka dix jours. je hmm. crois def naa ko fa. Hmm. Euh, donc bima ma demee village doon fajuwaale mais aussi don régler walé yéna situation familiale hmm. donc euh, lolo tax euh, bi dem bayna fi coow li. ma nek village coow continuer tout simplement parce que Momo Cissé mo wax ni gisna na ay vidéo donc lolo mo indi jafé jafé mais je tiens à préciser que ni euh, comme ni ko journaliste yëpp di défé di mm. gis dara mm. ñeu joxe information gis na dara. Mm. wala am dara ñeu joxe information ni am naa dara. non la ko defee woon. joo jubluwuma ci woon lenen lu wax ne lii nii existé na amna existé. donc euh, pour joxe l'information que si ça que ni ça ça existé. parce que dama am ko va sa waxal mu le problème entre Ousmane Sonko ak le truc mooy moi euh, xamul li gars yor exactement mm-hmm. même boo gisee mu naan na gars yi preuve xamul li gars yor mais ko ah war na xam ne gars ils ont eu une vidéo comment ils l'ont eu ban genre vidéo la est-ce que c'est un montage wala c'est pas un montage en tout cas mm-hmm. gars ils ont eu ah vidéo am na donc je tenais à donner cette information là bi ma demee nag coow li bari na ñu ne Momo proposé nañ ko cent millions mm-hmm. ah, pour mu génnee vidéo waaw Maître Dior Diagne gis na ko wax na ko yooyu yëpp amul dara amu ci donc cent millions moom buñ ma ko joxoon dama koy téye dem lijjanti ji vidéo bi parce que xam naa kii qui est vidéo justement euh, si vidéo donc contrairement ni presse bi daal peut-être li nga congé ko familial nekkoon dit li nga xam ne moo <coughs> euh, donc ñu naan da ngaa euh, en réalité dawoo mais da exactement non non parce que mars 2021 mm. moo a mm. metti mm, mars 2021 dama def émission wala ma def dara su ma paree dugg car laay dugg dem ñibi Pikine donc mars 2021 bi mi réew mi di tak ma ngi ci biir nit ñi di dox di mm, mm. donc di di ñu muy menacé di ma saga ma gérer ko donc je ne pense pas que ñu toll boobu heure bi ma wara mëna daw et puis bu may daw lan lay daw ak kan lay daw donc man gisuma lu may lu may lu may daw quoi donc du coup euh, amul amuma ben amul lenn nga xamante ni hmm. moom ma tax a yóbbu hmm. moom ma yóbbu village nii nii nii weer bi dee na nii donc li may li ma li ma li ma bu ma fii ak euh, le 10 wala hmm. le 15 fii ak le quinze dinaa delluwaat village donc je je vis comme ça parce que man maa wax suma yaay parce que dama fa daan géej dama daan toog ay weeri weeri weer dama fa dem mais bi ma fa amee soxna ci laa def ci laa ni dootuma fi toog weer boo nga xamante ne du ma fi ñëw même bu dee ñaari fan laa fi def sax dinaa fi ñëw donc loolu moo loolu moo loolu moo loolu moo ko waral donc c'est ça exactement jëm si li nga xam ne que moo di peut-être euh, raar na xam ni itam si sa jot na ko daal di raar si li nga xam ne que moo di la presse justement mais moom euh, dañuy ñëw si euh, li nga xam ne que moo di ba léegi si wàllu wunu mel exactement tu en as reçu beaucoup jëm si li nga xam ne que moo di ay menaces comment vous l'avez vécu yow ak sa famille non mais dara parce que ce sont les risques du métier sama yaay jaxlé na ci torop mm. mais mm. Euh, wax na ba sonu dem na sax banema il faut nga baye métier bi dem seeti benen ma ne ko lii mënu mako baye parce que dama baye lu gëna cher ci man pour dugg ci métier bi donc mm. mënu mako baye bàyyi mënu ma bàyyi wax donc il faut ngeen comprendre que ni suma ci nekkee mën ngeen xëy xëy ñu woolee na leen seen doom ji ko mën ngeen ñu donc yooyu yëpp am ci donc il faut que ngeen gérer nous noonu xam man lii opté sama métier moom laay def quoi donc lu ngeen mën dégg aussi su ma nous su dinaa leen ci jox ay information yu donc du coup euh, dama ko dund comme ñu ni ñuy nous rek ah, euh, comme tous les journalistes nous ñuy ay menaces ni ñuy ay saaga non non non non non non non c'était à refaire di defaat si si si si si si si si ma du ma tiit aw ma lu may aw ma lu may tiit. c'est mon benn non non non non non aw ma remords. parce que ah. limay wax dama ko dama ko dama ko ah. gis dama ko xam donc. Hmm. aw ma lu ma ciy lu ragal un jour waxna fi sax neena len buma bu ma juge bi woowoon wala procureur ma hmm. wax len lima ma hmm. wax lima ma donc aw ma lu ma ciy. alors ñu bëri aussi ñi ngi doon xaar que yoon ak wala ñona ne daal lay woo parce que euh, quoi qu'on puisse sur euh, li nga xam que moo peut être témoin oculaire nga ci bobu de dossier. parce que ya ñu témoin fekkeewu ma fekkeewu ma mais mais bon ya ñu interviewé si Adji à leeral on se rappelle justement de la sortie d'adissa Sarr ñu bëri yaakaar que peut être euh, Maham Diallo dina la wooyu itam nga daal di déglu bokk audition exactement peut-être pour xool euh, naka nga fekkoon Adji Sarr ak seen condition exactement. Euh, non Fallou Fallou xam nga non non non non loolu. Hmm. loolu euh, avocat mi fekkee nañu ko. Hmm. avocat mi hmm. avocat mi ñu ñu ngi ci donc man je ne suis témoin d'aucun événement j'ai juste eu la malchance. xaw la chance.

té bima djugé fi ma nekkoon aussi def naa ay investigation yu bari nga xamanteni xamna ko ci dossier bi mm. parce que quand Ousmane Sonko dit que affaire bi complot la amna ay loxo yu ci nek je me suis intéressé à ça mané attendez c'est vrai que mbir mi nekkul lu nga xamanteni mm. peut-être Adji Sarr cundung cundung la c'est vrai que même bu fekkente ne amna ay loxo yu ci nek ban moment la ci ban période la ci la ci loxo yooyu nekkee donc ma def sama investigation donc ci ñaari côté yépp mais li may wax yëpp bari na mais lu tuuti la ci gaay yi di dagg. Mm. mais moom wax na lii wax bu rëy ji <laughs> donc <laughs> mais li may wax yëpp dafay dafay dafay bari tellement nekk fii peut-être pour ñu mën a li nga xam nekk moo di leeral exactement euh, tout le temps say wax ni ngi koy interpréter du doon la nga xam ni itam soo nga bëgg wax exactement mais moom euh, bis ba nga demee interview ki nga xam nekk moo di Adji Sarr comme tout journaliste justement collecte tey li nga xam nekk moo di ay information euh, bëri na wax ak loo ak loo waxul maanaam li nga xam nekk moo di langage non verbal exactement ana seen condition nga fekkee ki nga xam nekk moo di Adji sa jour bobu non donc comme une comme une petite fille hein bo nga mm. xamanteni tay tey euh, war na def déclaration mm. gisuma mm. Euh, ci mom euh, lu nga xamanteni lu bizarre la wala lu kii donc ñew nañu def nañ interview bi ak mom après dem nañu wax na limi wax après dem nañu quoi. donc contrairement ak lu Alfousseyni Gaye daal di wax ni bis mom noonu gis aji Sarr nuruwul ko xamni tam itam da nga daal violer exactement. non xam nga bokkuñ jour buñ ko gis. Beaucoup jour jours ñu ko gis. donc hmm. man gis nako bien après bi affaire bi choli commencé commencé hmm. kii. Hmm. donc loolu mom, dama ko koy concédé. man de jour parce que gis nako, bon je je ne me rappelle plus de la date. mais c'était juste avant la déclaration la première déclaration d'Ousmane Sonko donc dañ ko gis le lendemain je crois ci le, ci le Ousmane Sonko def première déclaration donc euh, voilà euh, mënuma mënuma wax ne kii dañ koo violé mm. mënuma wax ne kii violé wuñ ko mm. parce que nekkuma ci je ne suis pas sociologue nekkuma aussi euh, ku nga xamante ni peut-être xam na état d'esprit nit ak nan lay toogee ak yooyu noonu donc pour ma juger ko dafay xaw a dafay xaw a dafay ci côté boobu dafay xaw a métti justement ñu gis ni li nga xam que moo di Adji Sarr defoon na boobu de interview amoon li nga xam que moo di des incohérences exactement ñii naan direct bu ndagg la ñii naan faux direct exactement qu'est-ce qui s'est réellement passé jour boobu xam nga <laughs> yow nag yaa ngi may indi ci loo nga xamante ne waxoon naa ci bu yàgg. nga mais il faut <laughs> leeral téléspectateur parce xam nga après mu daal lees boobu. waaw xam nga xam nga. Hmm. bi ñu jugee foofu noonu. Hmm. dañu dem interview. premier mooy interview bi bi ñu demee. Hmm, on avait on avait prévu de faire un direct. far yàlla direct bi mu jul am. parce que maître El Hadj Diouf avant Adji Sarr di di wax. dafa gis benn photo Adji Sarr bi mu gisee photo bi mu ne. Euh, dañu fruiteel photo bi on le met en danger photo bi euh, suñu exactement hmm. donc mu on est en train de le mettre en danger donc buñ hmm. def direct nañ hmm. def interview bi buñ défé interview après après ñu jallalé ko maintenant Adji sar bi mu ñëw di wax c'est vrai que mu am ay dafa am track ben ñaar ben ñaarel bu mu am ay incohérence yu bari yu nga xamante ne amoonti ci ay waxam peut-être maîtriser wul won bu baax elle n'était pas préparée suffisamment ci li mu waroon wax parce que bi mu ñëwee caméra yi bari nit ñi bari mu afolé parce que man bi mu génnee rek la xamné ki dina fi wax lo nga xamante ni maîtriser wu ko bu baax donc bi mu ñëwé top bu démé bu waxé ci benn bu nekkee ci benn ligne ba benn instant ba nar déraper hmm. Hmm. maître El da fay ñëw hmm. bu ñëwé intervenir ñun ñu couper ñen couper ñu couper lool non bu intervenir ba paré après ñu regaat

li ñuy wax ne euh, li li ñu li ñu wax ne moom la takk ci kii bi ay mm. boucle d'oreille la man bi mu mm. koy takk maa ngi mm. koy maa ngi koy gis donc amul woon amul woon amul woon tël non non kenn waxloo ko lépp lu mu wax rek ay foofu ay foofu ay nit ñu responsable ñoo fa nekkoon y avait la TFM y avait l'ITV y avait l'Observateur y avait euh, France euh, Le Monde Le Monde bu Paris y avait France 24 je crois y avait beaucoup de de de journalistes donc foofu amul woon et puis c'était pas ben espace amul woon espace bu nga xamante ne nit mën na toog fële di ko wax ne ko waxal waxale d'autant plus que maître El Hadji muy woon ci wetam moo doon ñëw ne ko bon bul wax ci lii waxal ci lee bul wax ci lii waxal ci lee donc. Hmm, parce que il y a les secrets de l'instruction exactement il y en avait pas ouais amul woon euh, amul woon ngeen diviser ko mu nekk euh, li nga xam ne itam mu jëloon fi tolli fi nga xam ne rek mooy zone Sénégal euh, comme doon comme image bi nu leen ko waxee noonu comme donc loolu li nga xam ne moo micro Leral TV la woon exactement. alors donc on poursuit justement jëm si li nga nekk modi euh, menace de mort yi ba est-ce que moo entre temps euh porte na plainte wala comme sax mi ngi daal di euh, euh, xàmmee xamni tam xam def walu wunu mel exactement. waaw j'avais porté plainte. Hmm, donc ñu ngi ci ñu ngi xol parce que. ñi ma ñi ñima waa ñima ma ñima ma ñi ma dajeel. ñi ma nga hmm. xamante ne dajee ak ñoom gis leen. Hmm, xàmmee te nga xamné suma leen gisé dinaa leen xàmmee ñooñu xaw leen mais j'ai porté plainte contre X donc voilà ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi xool ñu ngi xaar ba ba ñu gis leen wala ñu xàmmee leen pour pour yoon mën a def liggéeyam. pour yoon mën a def li nga xam ne que moo di euh, liggéeyam justement euh, mais euh, vidéo yi wax nga ko que vidéo am na en tout cas c' est vrai ou pas mais en tout cas ay vidéo existe na si li nga xam ne que moo di yëfu Adji Ousmane Sonko exactement. Mm. est ce que su demee processus am li nga xam ne que moo di métteel je dégguma maintenant ay vidéo euh, existe na waaw wala tête bu baax bi comme ça si bu bonne bi exactement ma c'est si authentique ou pas mais est ce que n'est pas procès d'une parce que non est ce que procès ñoom loolu la ñuy est ce que loolu est une preuve man je ne sais pas je sais pas si c'est une preuve en tout cas ci ordonnance de renvoi bi hmm. avant avant le procureur di def ordonnance de renvoi man hmm. j'avais dit à mes amis hmm. que le refus de faire le test ADN le fait que Ousmane Sonko bañ a def test ADN bi euh, procureur dina sukkandiku ci pour yóbbu ko ordonnance de renvoi

donc xawma ci euh, lan lañ procès mm. xawma ndax buñ ko procès mm. dina am wala am mm. mais wax la affaire gis si j'étais Ousmane Sonko damay tok di déglu vidéo bi wax vidéo damay tok rek di vidéo pour collecter de données illicites à caractère personnel ça ne peut pas être man man je défé lool piégé vidéo ma photo ma que dans des situations délicates hmm. soo ko je te hmm. porte plainte hmm. même de mes tribunal après je porte plainte pour collecte de données illicites à caractère personnel parce que Ousmane Sonko aussi euh, quoi qu'on puisse dire euh, euh, kilifa le ci tirer mi kilifa qu'il faut le na ay mbokk amna ay xarit am ay am ay dom, amna ay donc Yakar ni c'est les avocats de de ils ne sont pas aussi aussi aussi aussi aussi aussi qui que euh, inintelligent que ça di génnee ay vidéo voilà ay photo mm. non non mm. même le la photo bi nga xamante ne Mollah la génnee ko noonu mm. su ma doon mbokki Ousmane Sonko j'allais porter plainte j'allais porter plainte pour qui def montage bon non donc voilà donc image dafa sacré quoi image doomu aadama dafa sacré donc euh, damay faral di telle ben anecdote euh, quand j'étais à à Leral mos naa jot ben ben ben vidéo benn kilifa ben ñu tef ñu teg ñu ñu piégé ko ben way ak ben xalé bu jigen piégé ko mm. ba filmer ko mm. kilifa gu mag nag kilifa gu mag ñu filmer ko am ay photo am ay vidéo ñu yónnee mako ko ne ma nako ko publier moy mm. na quelque chose mais ne su ngeen ma doon jox àdduna ak lu ci bi je ne pas ça ñu ne ma beaucoup ko publier wul sa sa xarit dina ko publier sa keneen dina ko publier menen nako leen def mais man je ne suis je ne je ne marche pas comme ça après wax wax wax ba sonu menen en tout cas man duma publier les vidéos té bu vidéo yi génné bu ma bu ma bu ma laajee dinaa leen ne diw moo diw moo ko génnee. Mm. parce que envoyé nga ma ko. Mm. donc noonu la ñu def ñu waxtaan ba ba trouver terrain d'entente ma bàyyi ko ay mbiram. mais ne man lii duma ko parce que image dafa sacré dafa lo loo da fay dess des ba mm. abadan daiman mm. mm. jusqu'à la vie day des sa image nek ci réseaux sociaux yi wala ci wala ci ci ci internet bi tu vois say dom di mag diko ko gis après qu'est-ce que lan lay lan lay def ci dom ci ci ci say dom lan lay def ci yow donc bo déwé sax image da fay continuer di des donc il faut que sénégalais ñu xalaat loolu non bi ñu wax naan amna un célèbre avocat bu nga xamanteni ni ay vidéo ay photo mën attention ñu ngi jëm fu nga xamante ni ci réew mi c'est très dangereux bu ñu demee ba ñuy piéger ay kilifa pour am seen i vidéo wala seen i photo mm. saawaay waaw saawaay kon réew maa ngi jaxasoo mm. dafa am loo xam ne dañu delloo suñu xel mais leen kii dafa am ay doom am ay am ay am soxna am ay am ay njaboot mm. su ngeen génnee ay vidéo am ci internet bi ay doomam dañuy màgg ay sëtam dañuy màgg dañuy continuer di gis vidéo boobu loolu dafa ñaaw si détruire la vidéo am ñoo xam ne seen xaru sax xaj na ci donc il faut ñu faire très attention à la collecte de données mm. et puis cybercriminalité aussi on na qui gën mm. quel que soit alpha amna ay yo nga xamanteni bu ko bu ko nit ki génnee man je pense que procureur dafa war auto saisir hmm. bi ñu génnee photo Ousmane Sonko bi man je pense que jamono jojo euh, ñi nga xamanteni ñom ñoo nek ci cybercriminalité dañoo waroon dañoo waroon a porter plainte wala ñu wala ñu fexé instruire lu wax procureur mu auto autosaisir parce que li image jàmbur la bu nga xamanteni ñu ngi koy nek di ko détruire hmm. ci dynamique bobu la taxaw hmm. man loolu moy sama loolu moy sama conviction loolu moy sama gëm-gëm parce que l'image de la personne est sacrée ak nit ki lu mëna def ak mëna mel son image est

bon am nañu ñu nga wo hmm. nañ ma am hmm. far am am hmm. Pastef nga xamanteni la ci membre première heure Pastef yi téléphone di di di ndax yi la wala du deug di massaw am nga xamanteni benn bok yaakar lañu lañu bok wo nañ ma di massaw di laaj ndax yi la du fenn samay xarit lañu tamit la même chose pour vous dire que ci ci ci ci côté yëpp am na ñi nga xamante ne ñu ñu ñu baax lañ. Hmm. am na ñu nga xamante ne aussi dañuy yàq. donc loolu mooy loolu mooy loolu mooy li am ñu ci bari woon nañ ma di ma nemmeeku. Hmm. Euh, am naa ci xarit yu bari aussi. ci situation bi gis naa ci ay xarit yu bari gis naa ci ñu nga xamante ni taxaw nañu. Hmm. Euh, taxawaay mu nga xamante ni jéggi na dayoo ñoo xam ne mosuma leen sax gis. am ñoo xam ne mosuma leen sax teg bët. mais taxaw nañ taxawaay bu nga xamante ni mënu ko sax expliquer. te ba léegi mu teguma leen bët donc loolu c'est quelque chose quoi waaw hmm. alors euh, justement certains téléspectateurs may fàtt tey moom aussi se fi daal dalal euh, mu daal di euh, nekk li nga xam ne moo di journaliste analyste politique du parti boobu di leen daal di waxtaane jëm si wàllu bu nu mel alors ñëwaat ne nag si dossier di sa suñu mu gën a yaatoo justement donc yëf yi nag jàll nañ ko fa nga xam ne